asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu sëriñ bi neena nu maase ci séentu weer wi sëriñ bi nee na nu maase ci séentu weer wi sëriñ bi nee nu maase ci séentu weer ku ci xam lu wér nga ñëw yëgle ko na nu maase ci séentu weer wi sëriñ bi nee na nu maase ci séentu weer wi na nu maase ci séentu weer wi te ku ci xam lu wér nga ñëwele ko nanu maase ci séentu weer wi sëriñ bi nee nanu maase ci séentu weer wi teg ku ci xam lu wér nga ñëwele ko ndigal laa ngoog